yéen a ngi déglu VA FM rajo bu jiitu fii ci Tëngéej. li si yéene kaay ak Mbaye John. dalleen ak jàmm dund gi seer na ci diwaanu Sénégal ba yegg ci loolu ubbil yéenekaay bi di fu Walf Quotidien mu nga ñuy xamal ne jaaykatu restaurant ak gargote yi nekk ci biir Sénégal ñoom ñu ngay jooy lool ci dund gu seer gi lu ci mel ni ceeb diwlin ba ci jimbo ñoom nee nañu la ñuy jaay fi mu ne nii mënatuñ cee am dara ndax buñ ca yokkee mën nañ caa jaare rek ñàkk seeni client yéenekaay bii di Les Échos ne ñu kuréel bi di ANSUS ñoom nag mer nañu ba futt di joxoñ baaraamu tuuma ministère du commerce nee nañu lu jën njàkk mooy njàkk ndax njëgi bu yokkoo rek moom moom la te kuréel gii di ANSYS nee na ministère du commerce bu teggiwul tànkam rek dinañu amal grève bu tàng jër ci biir réew mi li yëngal réew mi ci jamono ji te nar ko yëngalaat ci jamono yële ñu jëm nag mooy coalition bii di yeewi askan wi ubbil yéenekaay bi di Walf Quotidien yeewi askan wi ubbi na làmbi politique ci diwaanu Sénégal ginnaaw ba maître Abdoulaye Wade bañee ne du bokk ci boobale coalition kii di Mamadou Diop Croix itam lànk na ba tëdd ci ñag ba nee na bokkul ci coalition yeewi askan wi waaye ba tey bokk gis-gis bu Pape Diop ancien maire de Dakar nee nañu ñoom itam bokkuñu ci boobale coalition yéenekaay bi di ñu xamal ne coalition Yewwi Askan Wi Macky Sall taxoon ñu ngemb waaye nag dinañ sëgg bëre képp ku bañ rek ne du bokk ci coalition bi ubbil yéenekaay bi di l'observateur kii di Abdoul Mbaye moom nag mu ngay xam ne li tax moom itam bokkul ci coalition Yewwi Askan Wi nee na yenn détails ya muy seetlu ca biir te itam kii di Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ñoom dañoo bëgg a jël rek def seen bopp ay njiit ci coalition bi te coalition moom du doxe noonu ñu jóge ci politique ci leneen ubbil yéenekaay bi di libération Alexia Moussa Konté mi ñëwoon nag ci diiwaanu Ndakaaru ubbi fa ab clinique ngir rek yokku jigéen ñi te teg ko loxo moom Alicia Konté démb jàkkaarloo na ak enquêteurs yi la mu xamle rek mooy bi mu ñëwee ci diiwaanu Sénégal ci diir bu gàtt opéré na fi lu toll ci juróom-ñaari jigéen ci anam yoo xam ne benn légalu ca ba kiliyaanam yooyee sax ñu ngi xamle ne depuis ba leen Alicia Konté opéré ba léegi dañoo am ay jafe-jafe ci seen wér gi yaram benn kiliyaan moom nee na un million cinq cent mille la ko jox rek ngir mu yokkal ko ay xottam waaye boobu ba léegi rek mu ngi dund métit wu tar dollars beneen client ne moom 600000 la joxe ngir defaraat ay encham keneen ki ne moom 420000 la joxe ngir rek ñu defaraatal ko bakkanam waaye booba léegi dafa am ay jafe-jafe ca bakkan ba waaye nag sénégalais dafa yomba nax lool rawatina jigéeni Sénégal ñu dem ci wàllu tàggat yaram ubbil yenekaay bi di stade éliminatoire mondial 2022 suba ci dimanche ji nag Brésil bu Neymar war naa jàkkaarloo ak Argentine bu Messi kon ñaari parisien ñoo war a jàmmarloo ci dimanche suba ji ñu dem ci lamb ja ubbil yéenekaay bi di sunu lamb Balla Gaye de de Double lees moom nag mu ngi ci dëgg géew bi ci jamono yi ñu toll ndax war naa laale ak Bombardier war wara laale ak kii di Eumeu Sène war a bëre ak kii booy ñaa ak Gris Bordeaux kon nag Balla Gaye 2 am nga liggéey na fexe rek ba waaj loolu ni kunkande waaji woon xar géej gi te fexe rek bul def ni moom yéen a ngi déglu